mën a gisee saa buy jonn yàlla sàkk yaa ngi dugg di gën yor say këyit xam naa ci wàllu enquête nga nekk. jàmbaar yee jàmbaar xanaa du doole doole laa waaw. mu daal koy modifié way ko ama ñaari ci sama kanam sur la coup am nga ni lool bu ko daloon ci xottu taal di fu jëm moom saw. bi loolu yëpp di am yaa ngi taxaw. maa ngi sur la coup taxaw di xool. am naa yoon maanaam policiers yi dinañ ñëw jël leen yéen ñëpp yóbbu nga nekk témoin. est-ce que jar na ko. yow wata qalila la ni papa dama duma wax mom de si mu togon fi sax duma wax mom del mu daw convocation la indi convocation Yo yo yobbu na sa fit bi yobbu na sama fit kay ki kay yo na sama fit ndax man demoon naa bari gër ba defe ni coow li kenn dootu ko sulli man ma yaakaaroon jaay sa ruu nga déedéet man kay duma jaay sa ruu jàmmul jaay sa jàmmul laa